ci doomi aadama yi nga xam ni ku ci réer moom daf la war a guider orienté la jëme la ci chemin bu baax bi mooy chemin bi nga xam ni moom ngay dajeeg ndimbalu yàlla walla wala ngërmande yàlla wala boog la saint esprit ci gàttal ok kooku kàddoom boo ko déggee mm-hmm. dafa war a ànd ak leer boo xam ne daf lay jëlee ci réer yóbbu la ci njub waaye bu dee kàddu gi bu génnee dafay mel ni ci njub la génnee bëgg la jëmee ci réer li tax ma ne ci njub la génnee bëgg la jëmee ci réer bu ne un prêtre mm-hmm. njub ngay xaar ci moom bu kàddoom génnee di ab lëndëmal mm-hmm. le rôle d'un prêtre mooy jëlee la ci ténèbre yóbbu la ci clarté mm-hmm. léegi nag bu su prêtre bi nekkee ci clarté wax kàddu yu jóge ci clarté bëgg la jëmee ci ténèbre loolu c'est autre chose. moo tax dafay baax ñu préciser ni moom waxul. au nom voilà moom waxul au nom nag de l'église. Hmm. boppam la waxal. waaw ah, parce que gis nañu ay journaux yu xëy ne. c'est l'église qui c'est pas l'église parce que l'église kàddoom yëpp clairvoyance la. Hmm. église kàddoom yëpp clairvoyance lay àndal. monseigneur. Euh, la cardinal saa yoo ko déggee li ngay tiire ci leçon yi mooy clairvoyance sagesse ndax ñoom ci chance yooyu rek ci la ñuy dox waaye abbé moom kàddoom effet nu mu tudd contraire bi la maanaam dafa waxee xol te abbé xolam lam ci ëmb du lu leer moo tax man la bi mu waxee rek dafa trahir ay sentiment am dafa trahir ay ressenti am envers le premier ministre lettre bi it bëri ay lees waxut ndax nag nous savons lire entre les lignes. qu'est-ce que vous avez lu entre les lignes ci Ousmane. des propos un peu irresponsables envers dafa xaw a sensible nag. Hmm. dafa xaw a doy mais lettre am bi bëri na loo ci mun a décortiquer maanaam Ousmane Sonko le premier ministre ak mbirum voile mooy li gën a ndaw ci lettre bi. les waxul yi c'est que vous moo tax je me pose moo tax moo tax je me pose des questions lan moo motiver lettre bi ndax dëgg-dëgg lettre gi ngir wax ak premier ministre la woon ci mbirum voile bi wala ndax lettre bi dafa jug ngir poser benn débat hmm. wala ndax lettre bi première pas la ci kaw benn programme bu lees waxut hmm. parce que coowal voile bi hmm. boo xoolee école catholique yi bëri nañ fi. mais Jeanne d'Arc la coow li amoon presque. Mm-hmm. Mm-hmm. man privé catholique jàngee naa fa jàngee naa collège Sacré-Cœur durant trois ans wala quatre ans quatre mm-hmm. xam naa seen enseignement bu baax a baax a baax a baax a baax problème mu voile bi. mu ngi posé wu Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc waaw mais pourquoi problème mu voile bi posé wul ci école yi nga xam ni mission chrétienne bi ñoo leen coiffé. nga xam ne foofu la loxo église bi waroon gën a feeñ. Mm-hmm. muy collège Sacré-Cœur Notre-Dame. Euh, mm-hmm. Notre-Dame institution bi nekk ville. collège Sacré-Cœur Immaculée. Mm-hmm. maam yi nga xam ne mission mission maam mission chrétienne bi ñoo lañ yor mooy seen fondation boobu. mais Jeanne d'Arc la polémique bi gënoon bëri ñan ñooy élèves Jeanne yi ñan ñoo fay jàngee. Jeanne boo génnee doomu autorité yi fa nekk. Mm-hmm. les ministres les députés wut. quatre vingt quatre vingt pour cent aux élèves Jeanne yi c' est des ressortissants libano-syriens. ok période bi coow li di juddu lan moo am Liban année boobu. conflit ethnique. Euh, mm-hmm. conflit euh, entre euh, les deux religions musulmans et chrétiens. côté musulman mooy les chite à leur tête le mouvement euh, Hezbollah euh, de l'autre côté les chrétiens à leur tête Ahmed Djadja ki nga xam ne moo yor milice chrétienne bi nekk Liban mooy les maronites xëccoo am ba narul jur guerre civile ba ay boomante jëlante arme am ci mhm. il a fallu benn benn benn arbitrage d'ailleurs sax loolu moo plongé Liban ci impasse économique bi mu nekk boobu ba tey pourquoi conflit bi am Liban période boobu xaw a répercuté wu fii ci école Jeanne bi nga xam ni élèves libanais yee fa ëpp ndax Jeanne ñaari confession yi dañ ko doon xëccoo loolay laaj bi état Sénégal war a poser pourquoi arbitrage bi parce que boo xoolee impacté damal nga xoolaat vidéo yi des mères libanaises ak seeni doom yu voilé ñoo ci ëpp. voilé yi ñu doon ay Jeanne quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi c'était des libanais wala syriens. Hmm. pourquoi ci même période bi Liban amee pour problème boobu même problème bi posé wu fii ci ci école boo xam ni ressortissant wu réew moomu ñoo fa ëpp ak arbitrage bi ci la patriarche des libanais bi nekk ville def est-ce que nekkuloon terrain benn combat par procuration boo xam ne liban la tàmbalee moo mucc agsi fii. ñëw terrain si Ndakaaru. Mhm. loolu lu jaral leeral la moo tax dossier boobu état wu Sénégal war na ko gérer bu baax a baax a baax a baax. ministre bu Sénégal waxul ci éducation Sénégal. ci lan lay wax quelle pour wax ci éducation premier ministre Sénégal waxul xam nga Sénégal pays laïque la. Mhm. laïcité confession wu jàmbur amoo droit. ingéré ci. dégg naa nag ay nit naan école yi nga xam ni religion diine jullit ko yor xale bu dul muuru du fa ne mooy maanaam daara ji. Mm-hmm. attention daara ji constitution bi reconnaître gu ko. Mm-hmm. loolu beneen débat la. constitution bi tënk laïcité reconnaître gul daara ji. bés bu reconnaître daara ji wo ñooñ daara ji amatuñu sañ-sañ na ki fiy dugg day muuru wala du muuru loolu beneen débat la tam mm-hmm. waaye école bii constitution bi reconnaître foofu laïcité dafay appliqué mais dina l'islam moom ku koy jàngi nag kanaa wàccoog li diine ji attention de attention de bu ko constitution bi coiffé jeex na de attention l'islam moom waaw jàngi waaye loolu leneen la rek wàccoog waaye loolu leneen la noo xam nga école am na école yoo xam ne du diine rek maanaam l'islam ma ko coiffé mais dañuy def enseignement général comme bu Mariama Niass mm-hmm. ay xale nga fay dem te duñ muuru waaw léegi yow bu fekkee ne laïcité xam nga par exemple non moo tax le débat là dans les écoles privées catholiques hmm. dañuy def heure de prière le matin waa ñun dañ ñu ko daan defloo pourtant je suis musulman d'ailleurs mës naa ci am incident collège hmm. Sacré-Cœur je me très bien bi may def quatrième ñu ñu ñu bëgg laa heure prière ma brûlé la surveillant daf ma fekk ci biir classe bi génn ma jox ma convocation. parce que tu membre intégral da l'école li élèves yëpp di def danga ko war a def dans les classes am na courant ça nous dérange pas croix bi dañuy janoog moom nii au tableau ci kaw ngan di dofi croix mais gêné wuñ ñu parce que amuñu problème boobu courant bi du ñu gêné xam nga lu tax dañ jàpp ni foi ku nekk ku nekk war na ko mun a respecter te doo nan laa ko mun waxee doo interférer ci ngëm-ngëmi jàmbur. Mm-hmm. mën naa nag sama xarit mu def prière am ma mokkal ko bu baax seen prière dama ko mokkal mais est-ce que man daf maa jëlee ci diina yóbbu ma fële. déedéet déedéet. loolu mooy taaru senegal da ngay ñëw sax si benn famille ñi nekk ay musulman ñi nekk ay. man am naa ci xarit yoo xam ni ah ñoom laa màggandool seen kër c'est c'est partagé seen yaay chrétienne seen pape musulman mélange boobu mooy taaru Sénégal. boo xëyee bis nag ne yéen ñu muuru taxawee leen ne la rek yaa ngi commencé indi problème te nee naa la muuraay bi fañ ko yëkkatee fañ ko agité. Mm-hmm. dëgg dëgg quatre-vingt-dix-neuf pour cent xale yi fa muuru duñu sénégalais. libanaise lañ wala syrienne. ok voilà. mu nekkoon combat par procuration. man li ma gëm mooy combat par procuration la bu départoon ca Liban ñëw ak ñëw agsi fii ca école Jeanne ak mission libanaise. gis nga moo tax man la l'affaire était plutôt étrangère au Sénégal. mais pas particulièrement loo xam ni Sénégal la gère parce que déggoo coow ci yeneen école privée catholique yi. déedéet pourquoi Jeanne rek loolu la nit ñi waroon laaj. pourquoi école bi nga xam ne libanais yee fa ëpp te libanais période boobu euh, nu mu tudd milisu Ahmed Diadia yeeg milisu Hezbollah yi di xëccoo réew mi. politiquement mais loolu est-ce que nekkul gouvernement bi fi nekkoon moo jëlul responsable gouvernement bi fi nekkoon moom c'était des irresponsables xam nga li tax. Hmm. même chose moo leen daal ci école Yefu Salim. Erdogan a am problème ak Fethullah Gülen na lépp lu Fethullah am dama koy nangu. au pour les beaux yeux Erdogan Macky Sall di dilapider une de plus belles écoles d'excellence de ce pays mooy Yafus Salim une meilleure école ci réew mi Yafus Salim ci la bokk boo nekkaan beneen école dajek benn élève boo xam ne dafa jaar Yafus Salim bu ñëwee ngay xam ne formation bu ute na ak yow sa formation bu ngeen bokkee classe mm-hmm. Macky Sall éliminé na ko nii ci salaamaaleykum pour neexal Erdogan waaw ah, pour neexal Erdogan xam nga nag Erdogan nag yàlla am la woon moo tax bi biñ ko gësamee Erdogan daw yónnee ko ndimbal mars 2021 logistique bi ñu doon matee nit ñeeg système de renseignement yu bëri et Turquie la jóge woon en contrepartie jox na ko fi lépp Erdogan fi ñu ko jox nii fi ñu tabax seen ambassade bi mhm. mais occidentaux yu bari buggoon nañ ko ñu bañ amul lu ko gën a stratégique suñu camp militaire lañ tiim camp yi gën a sensible ci réew mi la Turquie moom la Turquie tiim loolu kenn mësu ko gis loolu Macky Sall rek ko sañ jël sa camp yu gën a stratégique camp militaire jël une puissance étrangère jox leen ñu tabax tiim ko Macky boo ko doon topp pour haute trahison fukki buntu am nga ko. déedéet waaye incha allah wallaay Macky Sall. ah boo ko doon topp pour haute trahison fukki buntu am nga ko waaye da ko jarul loolu kenn mësu ko gis. jël second yi gën a stratégique ci capital bi jël une puissance étrangère mu tabax tiim ko ak li ñu am lépp ñoom ci ay communication ci ambassade ñëpp xam na ne ambassade yi niche d' espion la. Mm. ay appareil de télécommunication d' espionnage yooyu rek fa nekk.